أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي أجيين بتايتي كتاب التوحيد ci buntu ma jaa fi ruqa wa tamaim ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci buntu boobu nga xam ne mi ngi ñuy jàngal di ñu fàttali lan moo nekk ci mocc ak gàllaaj lan moo nekk ci takk gàllaaj ak ay béjjën ki ay xaaw ak ay pettaaw ak ay lem ay lam waaye lan moo nekk ci jat ak lan moo nekk ci mocc tey mooy bunt bu ci mujj darsu tey ci kàttanu sunu borom subhanahu wa taala ki ciy jàng war na ci leerlu bu baax a baax an yatabayyana al muslim fadlu qat'u tamaimi tey dars bi dañuy jàngal ngëneel yi nekk ci nga gis ku takk gàllaaj nga dagg ko nga gis ku takk ci béjjën nga fexe ba mu dañ nga gis ku takk lam nga fexe ba mu dindi ko tey bokk na ci li ñu war a jël ci dars mooy bëri bu nga xam ne mbokk yi tey noppi nañu ko ci ñàkkalaaye biir ñi ñuy gis ñuy bokkaale di takki gàllaaj di takki lam di takki petaaw di takki xaaw yenn saa yi sax mu nekk ci sa biir kër ngay ngay suñ la waxee nga naan damay daw fitna kon danañ jël tey ci tomb tey bi ngëneelu fexe nga gis kuy bokkaale di takk gàllaaj nga fexe ba mu dindiku ñaareel bi mooy an yahzar al talib al al amal al muxlita bil aqida mooy tey danañ jël ci ngëneelu bunt bii mooy jullit bi war a mooy ca ndiku bu baax a baax a baax jëf yi nga xam ne dafay indi njaxas ci biir pas-pasam loolu tamit di nga gis lu baree bari ci ñun ñuy seetaan ba lenn ci ay jullit di jaxase ci seen pas-pas loo xamante ne bokk ci te pas-pas lépp lu ko yàq jaamu yàlla lay yàq parce que da lay dindi ci lislaam loolu moo tax pas-pas yi ñu war leen sàmm ñu war leen aar ñu war leen garder ba dara du leen rax ndax doomu aadama sa pas-pas bu raxee rek sa diina yàqu na ñetteel mooy an yuxsina taalib nafsahu bi hifzi al udiya wal azkar al mashrua dinañ jële ci tomb tey bi jullit bi war a aar boppam war a sangewu ci ay ñaan yoo xam ne mi ngi ci quraan mi ngi ci sunna ak ay azkar yoo xamante ne dañ koo yoonal nga mooy tandiku jat yeeg mooy tandiku pettaaw yeeg mooy tandiku xaaw yi nga mokkal ay ñaan yoo xamante ne bu amee lu la dal nga jël ñaan yooyu nga ñaan ko tey dinañ ko jël ci njàng yi ñuy jàng bu ñëwee ci dars bi dinañ fekk taabii bu tudd said ibnu jubair mu ñuy nettali mu ne qaala man qataa tamimatan min insanin kaana ka adli raqabatin rawahu waqi said ibnu jubair nee na man qataa tamimatan képp ku dagg gàllaaj min insaanin ci doomu aadama nga fekk ku takk gàllaaj nga dagg ko wala nga fexe ba mu dindi ko nee na yow am ngay tiyaaba kaana ka adli raqaba mu ngi mel ne yaa ngi ku ku goreel jaam waaw tiyaaba yi ku goreel jaam allahu akbar mu ñëwee di di firi di firi waxu waxu Saïd ibnu Jubayr bi di ngeen xam wax ji nan la toll ci am importance had loolu mu ñu nettali loolu Saïd wax boroom xam-xam bu tudd wax kii moo ñu ko nettali nee na képp ku dagg gàllaaj ci nit walla nga waxtaan ak moom ak gunt yoo ko mën a jaare ci dagan ba mu dindi gàllaajam googu nee na yow am ngay tiyaaba ka addili raqaba ku goreel jaam wala hu ñëwaat na ba tey an ibrahim qaala kaanu yakrahuna tamaim kaanu yakrahuna tamaima kullaha min alqurani wa gayri alqurani mu ne ñoom ñoom nekkoon nañ ñan ñan salafu saalih ñu baax ña nekkoon nañ yakrahuna tamaim dañ doon bañ ay gàllaaj kullaha lépp nag min alquran wa gayri alquran moo xam alquran la moo xam du quran ñoom dañ ko doon bañ kon ñaari wax yi mooy sunu dar si tey bu njëkk bi mooy waxu saïd ibnu jubayr ñaareel bi mooy waxu ibrahim saïd ibnu jubayr nee na képp ku fexe ba gis kuy takk gàllaaj nga dindi ko ci moom am nga tiyaabay ko goreel jaam ibrahima nee na ñoom dañ daan sib yakrahuuna attamaima kullaha dañ daan sib ku takk gàllaaj min alquran wa gayri alquran moo xam quran la moo xam du quran anasiru dars éléments yi nekk ci ñaari wax yi addiinul islaam yi sunu diine ji muy lislaam mabniyun ala tanasuxi dañ ko fondement dañ ko tabax binaal ko dëgëral ko ci laayante biir diine lislaam fondement ak ay kenoom mooy laayante biir di yeddante di waxtaan ci sunu biir ci wax yu am njëriñ wa taawanu ala al birr wa taqwa ak di laayante di dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla loolu mooy diine lislaam wal amru bil maaruf wa nahyi anil munkar bokk na ci fondement yi mooy digle lu baax tere lu bon moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax pour mu wax ñu lii mooy élément yi mu ne ñu addiinu an nasihatu diine day laaye biir diine day laaye biir mu ne fa ida raa almuslim anna gayrahu qad allaqa tamimatan alayhi fa yambagi an yuzilaha mu ne soo gisee ab jullit bu takk gàllaaj yow mi ko gis lan moo la war ne nga dindi ko wa lima yurja lahu min al ajri ndax tiyaaba yiñ ci wax moo ci nekk ndax tiyaaba yiñ ci déggee tiyaaba yiñ ci diggee kon moo tax bul ko bàyyi mu dem waxal ak moom allazi yaadilu tiyaaba yi nan la toll mu ne mu ngi tolloog itqu raqaba goreel jaam wa yakunu zalika billati hiya ahsan nee na lool nag na nga ko def ci anam yu rafet asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk mi lii nga takk lan la ah loo ci jublu ah est-ce que xam nga lor yi ci nekk est-ce que xam nga yonent bi daf ko tere est-ce que xam nga jullit du takk gàllaaj wax yu demee noonu ba waa ji dindi ko moo gën rek tey ñu bàyyi jullit ñi takk waxuma sax takk quraan waaye romb nañu quraan lu ne ngay gis takk ci oto yi takk ci buntu kër yi takk ci bopp lal yi di di toj karo kër yi di dugal di suul tey dama yendu benn kër di tax boo am importance ndaw soo xam ne yàlla mi ngi def gis nga dars yi ñuy def fii ay junniy junniy junniy junniy nit ñoo ciy jëriñu te yendu naa kër goo xam ne kooku maa ngi xamante ak moom ci internet bi par téléphone après la ma woo kan moo ko jox sama numéro xool ku nekk Italie moo ko jox dars yi ñuy def fii mu déglu ko tey ndaw si xamal na ma ne man sangoo naa deret xamal ne ma ne kër gi karo yi am na yoo xamante ne dama fi defoon ay butel ñu karo la mu ne waaye yooyu yëpp dañ naa ci ba set allahu akbar kon ñu xam ne wax ji dafa am importance dañu war a wax mais di noppi jullit yi di dee di dem safara amul benn importance il faut ñu góorgóorlu mbokk yi laaye biir comme ni texte bi waxee fi ad diinu an nasihatu diine mooy laaye biir moo tax mu ne fa in raa anna gayrahu qad allaqa tamimatan fa yanbaghi an yuzilaha soo gisee ku takk gàllaaj li la war mooy nga fexe ba gàllaaj yi dañ soo gisee kuy bokkaale fexeel ba bokkaale bi dañ boo gisee kuy sangoo deret kuy wër garab kuy tuur soow kuy kuy bul ko bàyyi noonu bul wax sama yoon nekk ci bul wax min husni islaamil mari tarkuhu ma la yaanihi loolu hadis bi taxu ko jóg bul wax man dama am vie privée moom dafa am vie privée lu ko neex def déedéet ndax lii muy def soo ko bàyyee bu dee safara la jëm ndax yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo ne ku dee ci yi safara la jëm kon yooyu saa yoo gisee nit di ko def bul ko bàyyi laaye ko biir mu ne na nga ko laaye biir wa yakunu zalika billati hiya ahsan na nga ko laaye biir ci wax ju rafet wax ju teey wax ju dal indil ko ay dalil ay tegtal ci quran waxu yàlla waxu yonent sulanke it bul ko bàyyi beneen yoon ñaari yoon ñett ba bisa ngi ñëw mu bàyyi ko mu ne li anna al unf yu addi ila tanazua bul xëccoo bul xuloo bul werante bul xeex ndax loolu li muy indi mooy day indi xëccoo bu bu xëccoo ñëwee wa shiqaaq tàqalikoo daa di am kon yooyu ay mbir la yoo xam ne suñ koy réglé duñ ko réglé ci force waaw duñ ko réglé ci wax ju naqari duñ ko waxloo duñ ko réglé ci ñàkk teggin duñ ko réglé ci ñàkk kersa waaye ci xel lañ koy réglé ci xel mus naa gis sunu benn ustaaz yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla tabal aljanna dafa ma daan yóbbante di ma wax su ma faatoo su ma la njëkkee faatu sa xel su demee ci man nang ma ñaanal yàlla yàlla na ma tab yàlla na ma yàlla tabal aljanna yàlla na ko yàlla tabal aljanna dafa mës a dugg ci oto mu gis benn policier bu takk lam lam bu ngand ci loxo bi mu nuyu waa ji ne ko sant bi waa ji daal di wax mu ne ko tur bi waa ji daal di wax turu jullit mu ne kon jullit nga waa ji ne ah waaw waaw mu ne ko dama bëggoon waxtaan ak yow ci lam bi waa ji ne ah sama lam bi nag munoo fexe ba ma dindi ko góor gi nag wax dëgg yàlla nag ah saru nga ci wax de góor gi ne teg ba ci ak ne ko xam nga yow homme de loi nga oto bi boo ci gisoon histoire nooy def da ngay da ngay wàcc dem sa yoon ne sa yoon nekk mu ne ko déedéet dama koy réglé mu ne ko man tamit homme de diine la aw ma droit gis ngay jalgati di xëtt lii boo dee dem safara ma ko fi bàyyi waa ji ne teg di ko déglu gis nga fi mu ko jaaree yow homme de loi nga dañ lay wax nga réglé dëkk bi man tamit homme de diine la xam nga li xamoo ci dara xamoo li nga def nii dangaa jalgati islam xamoo li nga def moo tax ma la koy wax mu ne ko ah léegi lii li ci lislaam wax mu ne ko lislaam dane góor du takk lam mu ne léegi nu ma koy def nag mu ne dindi ko ba demee nga may ko sa jabar waa ji daal di dindi lam bi dugal ci poos ne ko waay jërëjëf waay jërëjëf waay waay jërëjëf waay kon noonu mooy wax ji mais boo nee ah kii de police la wala kii nàngam la wala kii sama yoon nekku ci wala kii xaw ma ko te loolu da nga koy da nga koy essayer lu baree bari ci ci dëkk bi muy réussir nga ñëw nuyu nit asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa ah yow de gis naa la sànq bi ñuy julli nàngam ak nàngam wala gis naa la li nga takk nii wala gis naa la t-shirt bii nga jullee wala gis naa la nangam bi su ko defee nga gis ah li tax ma la koy wax nag mooy dama gis ne vraiment ku baax nga parce que yaa ngi ñëw ba ci jàkk ji di julli te lii da yàq si julli kon beneen yoon ay gis waa ji day dellusiwaat kon looloo tax ñu war a delluwaat ca cosaan mooy laaya biir ad diinu an nasiha ñu laaya biir nit ñi ndax gàllaaj ku ko deewaale doo dugg aljanna mu ne ñu bañ ko def ci tàng bañ ko def ci xëccoo bañ ko def ci tàqalikoo ñu fexe jullit boobu li mu takk mu tekki is qatu tamima min al insan faqad ataqadtahu min ashirki képp koo xam ne fexe nga ba ki doon takk gàllaaj mu dindi ko yow day fexe waa jooju tekki gàllaaj libéré nga waa ji ci bokkaale goreel nga ko ci bokkaale ay ataqatahu min ashirki libéré nga ko goreel nga ko ci bokkaale waxuma la libéré nga ko ci bokkaale képp koo xam ne dañ laa fekk ngay bokkaale ñu jëlal la ci bokkaale ci lan lañ la sauvé safara lañ la sauvé waa ji dafa doon dugg safara ndax innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa mawaahu naar kon boo gisee waa ji di bokkaale nga fexe ba mu bàyyi bokkaale yow libéré nga ko ci bokkaale te soo libéré nit ci bokkaale mooy goreel nga ko ci safara kon boo fekkee ku takk gàllaaj nga fexe ba mu dindi ko na nga fexe yow sauvé nga nit ci safara ku waroon dem safara nga musal fa kaana ka man ataqa insanan min arriqi yaa ngi mel ne jaam esclave boo fekk mu am ay jafe-jafe nga jënd ko ci sangam daal di koy libéré ni aboubacar radiallahu anhu defoon bilal ñaareel bi ci anasiru dars mooy élément yi mooy hirsu salaf ala himayati tawxid mooy xër gi nga xam ne salafu saalih mooy sahaaba yi ak seen génération ak ña ca topp ñoom xëroon nañ ci protéger tawxid xëroon nañ ci aar tawxid mooy kennal yàlla ñoom dañoo xëroon ci di ko aar ba dara du ko xët di ko yàq laqad harasa salaf as-salih ala saddi abwaabi shirki mu ne boroom xam-xam yu njiitu ya mag ñu baax ña dañoo xëroon lool ci tëj bunt yi nga xam ne day yóbbu nit ñi ci bokkaale ñoom dañoo tëjoon bunt yi fa mana'u taaliqu tamaim ñu tere takki gàllaaj ak façon bu mu mun a nekk kulliha hatta walaw kaana maktuba min alquran même buñ ko bindeek alquran sax ñu ne la bu ko takk himayatan li tawhid ngir aar tawhid ngir aar kennal yàlla subhanahu wa taala ñu aar ko ba du am jafe-jafe du am problème ba lépp loo xamante ne day tax doomu aadama di bokkaale dem safara ñu daal di koy aar himayatan li tawhid wa saddan li abwaabi sirk ngir tamit fat pax yooyu nga xam ne mooy paxu bokkaale ndax kat gis ngeen miir bii fii bu ñu fi bëggee ubbi bunt fii bu ñu fi bëggee ubbi bunt ñu jël martu lan la ñuy njëkk am balaa ñuy am bunt pax boo dóoree martu bi tëf tëf tëf ñaari yoon pax am après pax bi luy am bunt bi daal di ñëw fenêtre ñëw bunt ñëw pax yooyu nag nga xam ne dafay ubbi ay bunt sahaaba yi dañ ko doon fat lépp loo xam ne day yóbbu nit ci bokkaale ñu tëj bunt boobu ba bokkaale du mun a am moo tax mu ne wa hifzan lil quran ak aar alquran xoolal tey takk alquran danger bi ci nekk mooy yow mi ko takk nga jékki-jékki biir yabal la est ce que da ngay taxaw naan xaaral ma tekki tekki la ko ndeyjoor tekki la ko càmmoñ tekki ndigg li tekki mbagg yi tekki tànk yi ci suuf déedéet da ngay daw rek jël sa satal dugg ci biir duus bi lan ngay dugalaale nga dugal alxuraan bi ci biir duus bi ñaata nit ñooy fàtte am na ñoo xam ne sax waxuma la dañoo takk xuraan waaye kaamilu alxuraan yu ndaw lañu yor di ko def seen poos yenn saa yi nga dugg ak moom duus fàtte wala ñaata yoon nga dékku la ne ah man de wax dëgg yàlla barki démb ki nga xam ne nag dafa dem dugal ko ci poosam dënn bi muy sëgg kaamil bi daanu nag ci biir duus bi ñaata ñoo lay wax loolu kon yooyu dafa jaram mooy te ndiku yóbbaale alquran ci duus même boo ko teyul wóorul waxuma laag nag boo ko teyee te yëf yi am na nu muy baree loo xam doo ko tar doo ko mën a tekki ak noonu am na noo koy takkee doo ko mën tekki kon yooyu sahaaba yi dañ ko doon def aussi pour aar alquran mooy wa hifzan lil quran minal imtihaan aw minal ihaana ci toroxal ko ak doyadil ko fa inna allaha subhanahu wa taala lam yanzil alquran li taaliqihi yàlla wàcc alqur wàccewul quran pour ñu koy takk amul fenn fu ñuy gis ci alquran fu yàlla ne takk leen yonent yàlla muhammad bu fekkoon ne takk dina dagan yonent bi ba yàlla bu koy wax kul du ko ne kul danaan ko takkal waaye gis ngeen xulange bi falak dañu ne day protéger loolu la yonent bi wax day protéger waaye yàlla wax ko takk da ko ne wax ko xul la wax xulange bi naas bañ nañ ko ba da ngay dégg ñu ne la muawisatayni ñaari yi musala musalaate mais yooyu yëpp wax ko takkal lan la ko wax xul la ko wax xul waxal kon yooyu ay mbir la yoo xam ne alxuraan wàccul pour loolu fil buyuuti ñu koy takk ci kër yi ah yooyu alxuraan wàccul pour loolu awi sayaaraat wala oto yi awi suduur wala dënn yi li tabarruki bihi nga gis koo xam ne day yor ngandum maami ngandum maami téere ci ndigg li wala dënn bi benn kees espèce su kees ndeke ay kaamil ñoo nekk ci biir nga gis ku yor bàgg bu ngand bàgg boobu benn kaamil lañ ci def kaamil bu ndaw wala ñu def ci ay aaya alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon na jaara buñ bind laa ilaha illa muhammad rasulullah waaye bu fu mu daan dugg toilette da koy dindi bu daan dugg toilette da koy dindi bu daan faj aajom day dindi jaaro gis nga kon loolu mooy wane ne dafa am place yoo xam ne am barab yoo xam ne kenn du fa dugg di yóbbaale alquran mu ne sunu borom subhanahu wa taala wàccal alquran pour ñu koy takk ci bu kër yi pour oto yi pour dënn yi pour barkeelu wala ñu koy def taar li ziina am na benn borom xam-xam bu mag ndeysaan mu ne alquran tey dafa nekk ziinatul xaflaat alquran dafa nekk taar pour ndaje yi ndaje yi ndaje yi gis nga tey du ma wax sax ñi dund bidaa ñi dund sunna laay wax bépp ndaje bu ñu am avant tout da ngay dégg ñu ne nañ leen jàng alxuraan ñu indi benn xale mu jàng alxuraan terminé bu ñu paree ñu daal di tasaaroo léegi alxuraan loolu rek lañ koy jale daje ubbee ko ubbee ko daje yi ubbee ko daje yi zinatun lil xaflaat zina lil xaflaat wal buyut wala ñu orien orne ko bind ko ci miir yi ay ay rafet def ko ay poster jaay ko tey loolu la mu ne alxuraan nag wàccul ngir loolu kaman yalbasu alqalaid azahabiya wala def ko ci benn keesu keesu xaalis dugal kaamil bi ci biir kaste ko yóbbu ko ci benn uude ne ko kasteel ma ko yenn saa nga gis ñu ne uude bi boo koy ëwdu bul sol tubéy wala bul jublu penk wala nangam ngay def wala doo wax ba ba ngay pare zaaru musiba yooyu nga xam ne kenn xamul lan la awil xuliya al maktuba alayhi ayatul kursi wala nga gis ay kii yoo xam ne takkaay yoo xam ne dañ ci bind ayatul kursi yu ay takkaay takkaay ñu def ci ayatul kursi yu aw qul a'udhu bi rabbil falaq aw qul a'udhu bi rabbin nas yëpp anzalahu subhanahu wa taala li tadabburihi alquran yàlla da koy wàcce pour ñu settantal ko settantal ko afala yatadabbaruunal quran yàlla neen lu tax du ngeen settantal quran du ngeen ko xool yàlla wàcc na ko pour ñu xool ko kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija nnaas min azulumaati ila nuur téere la boo xam ne dama ko wàcc ci yow pour nga génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer sunu borom subhanahu wa taala wax na ci suuratu yaasin ne dama ko wàcc pour ku dund wàccewuma ko pour ku dee li tunzira man kaana hayyan li tunzira pour ñu waar ci koo xam ne xayyan day dund mais xoolal tey bala ñuy jàng alxuraan am ku dee ñu dajaloo yenn saa yi nga dégg ci rajo bi ñu ne ñu ngi wàcc juróom-ñaar fukki kaamil wàcce nañ fa junni kaamil su ma déggee loolu sama yaram day daw damaa xam ne kaamil ni mu ni mu benn kaamil rek benn fi mu nekk nii ñun bu ñu indiloon benn kaamil ñu war ko jàng wàcce ko normalement min wi la ñu war a pare waaye da ngay gis fii nit ñi 30 secondes ñu ne wàcc nañ 100 kaamil yi yenn saa yi nga dend ak waa joo xam ne nii rek lay def waaw kii moom moom lan lay jàng nii rek lay def nii di teg di teg di teg di teg fekk yow yaa ngi ci benn feuille moom passé na 40 feuilles xanaa loo gaaw gaaw gaaw boog ah hisib war nga ko mën a jàng boog 30 minutes hisib mais xoolal ñun. ixwatal iman sunu borom subhanahu wa taala mu ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yatadabbaru ayaatihi téere la boo xam ne wàcce naa ko ci yéen anzalnaahu ilayka wàcce naa ko ci yow muhammad lu tax mu ne mubaarakun téere bu am barke la li yatadabbaru ngir ngeen settantal ngir ngeen taxaw jàng xool déglu aayaati aaya yi su ñëwee ci ñetteelu tomb ba tey ci anasiru dars mooy taxsinul muslim nafsahu min ashururi wal afat jullit bi tamit nag bu ñu la teree am na lu ñu la sant islaam nekkul ne diine joo xam ne dalay tere rek bul def bul def bul def bul diirit saa yu la teree am na lu mu la sant kon war nga yëg ne war ngaa aar sa bopp tey fi ma lay wax ki ma lay wax nii daf ma wax lu doy waar mu ne ma fi muy liggéeyee day waxtaan ak benn jigéen kooku ne ko waaw yow sa mbir mii doo dem ci ab sëriñ mu ne ko bu ma waxati waxu sëriñ yàlla doy na ma ci mu ne ko yàlla dafa yéex yàlla daa yéex xoola jullit bu naan yàlla dafa yéex jullit naan yàlla dafa yéex yenn saa nga dégg ñu ne yàlla dafa rittax yàlla kese kese yow yàlla rek ah ah waaw baax na ah ñun de wax dëgg yàlla fii sunuy maam lii lañ leen fekk ñuy dem imagine jullit bu demee te ba yàlla doy ko ngay julli di jàpp di cëkër cëkëri di woor di aji màkka te yow yàlla doyu la yow yow koy koy jullil soo demee te ba yàlla doyu la looy jaamu yàlla koo koy de koo koy joxo ah te nag loolu tey ci biir réew mi da ngeen yaakaar ne benn nit kese la ak a bëri ci réew mi ay nit yoo xam ne yàlla kese kese doyu leen foog yàlla ak ñaata yoon nga koy dégg bu neexee yàlla ak diw ak waxtal tur nga ne ah sëñ bi salaamaaleykum li nga wax noonu day diine da koy tere maanaam yàlla kese mu ne waa ma ni bu neexee sax diw léegi rocc yàlla sànni fële di la naqaral ma ni dama ca boole woon yàlla léegi génne naa yàlla nag diw lay neex yëpp am nga dégg ñu lay wax loolu yooyu ay waxi musiba la ab jullit da koy moytandiku ab jullit day ragal yàlla ab jullit ah gis nga loolu la hawla wala quwwata illa billah alal muslimi war na cib jullit an yuxsina nafsahu mu aar boppam min ashururil afaat ci ay yu bon ak yuy wàcc ci jamono ak yu ay xew-xew yuy am islam bu la waxee ne nangam ak nangam mais il faut mu ne la na nga aaru waaye lan moo lay aar mu ne bil azkaari ci ay ñaan alwaaridati yoo xam ne wàcc na jóge ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne yonent yonent bi kan moo ko ëppoon ay noon ci kaw suuf kan waa Quraysh ay noonam lañ woon yahuud yi ay noonam lañ woon naafiq yi ay noonam lañ woon nasaraan yi ay noonam lañ woon ceddo yi ay noonam lañ woon mushrik yi bokkaalekat yi ay noonam lañ woon buñ ko yonent bi posone nañ ko yonent bi yonent bi ta am tendre nañ ko pièce embuscade yonent bi génne nañ ko yonent bi fanaan ay nit fanaan nañ buntu këram yor ay jaasi pour bu génne ñu rey ko xoolal loolu lépp ba mu génn màkk dem Médine kon bu ñu ko mënoon rey rey ko mais yàlla moo ko aar parce que yàlla moo ko jox ay ñaan mu koy ñaan moo tax yàlla di ko aar wallahu yaasimuka min annaas man yàlla maa lay musal ci nit ñi inna kafaynaaka al mustahziin ñii di la di la kii man yàlla maa la ci maa lay musal ci ñoom kon jullit dina aar boppam ci ay ñaan allati tanfa yoo xam ne day jëriñ man yaquluha ku ko wax waaye bi sidiqin nga gëm ko xam nga mbir du jëriñul ku ko gëmul fatiha bii ngay jàng boo ci amul yaqin du la jëriñ dara ayatul kursi boo ci amul yaqin du la jëriñ dara dara dara dara loolu moo tax ñun suñuy ñaan souvent même bu fekkente ne ayatul kursi yi nga jàng fatiha nga jàng amana rasul nga jàng du am effet ci yow parce que gëmoo ko benn jinne dafa jàpp benn jigéen ñu indi ko ci Omar ibnul Xattaab Omar ne téye leen ko ñu téye ko Omar daa ne aawuzu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim qaaf rek ginne ji ne pat génn ci ndaw si mel ni muus bu ñuul rek daw ndaw si normal yër kën ñu toog ay at Omar génn àdduna jinne bi dellusi na waat puccuk ci ndaw ci dugg ñu indi ko benn waaye bu ko fekkee woon mu ne ah du kii la wax fi mu Omar moo coon daaw at jéeg ñu ne waaw mu ne ah xale ma ñëw Omar waajaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دول الله مروحون بسم الله الرحمن الرحيم دول الله مروحون قاف جنة جي تونت كبير ndaw si ne ko lasta umar doo umar waay doo umar lasta umar nekk ci biir ndaw si naan ko doo lasta umar doo umar kon gis nga ki ñaa pourtant lenn la loolu la njàng même comprimé la même médicament la feebar bi muy faj lu tax fajul ki parce que fa mu génnee kon il faut ñu def attention di xool nu ñuy génnee mbir yi di xool aussi ñun ñu koy génne fan lañ toll ci lii ñuy génne est-ce que gëm nañ ko dëgg-dëgg gëm nañ ko amoon naa benn yaay joo xam ne bi ma nekkee daara suñu yaay boobu dafa amoon doom ci daara ji bu feebaree su gisee sëriñ sëñ daara bi rek day wér waaw su feebaree danaan yóbbu leen ma kër sëñ bi ñu indi ko suñu kër sëriñ su oto bi gaaree ñu jàppoo meer bi wàccee rek sëriñ na tëlli na ko bismillah ex ndaw si nee na cocc wér na kër kër nga lay def kër parce que daf koo gëm mbir du jëriñul ku ko gëmul moo tax aaya yi ñaan yi kan lay jëriñ tanfau man yaquluha bi sidqin wa ixlaas kan lay jëriñ mooy ku ko gëm ci dëgg ak ixlaas sellal aaya yi wa quwatu tawakkulu mu am dëgg dëgg dëgër wakkirlu ci yàlla tabaraka wa taala wa yaqiin mu am ci kóoluti yii boo ko defee ci ab aaya wala ab ñaan boo ko waxee wér boo ko waxee mu saafara li nga bëgg wa min zalika bokk na ci yi nga xam ne dañ la wax nga mokkal ko ndax nga ci aar sa bopp ndax nga ci fekk sa bopp ndax nga mucc ci musibaay àdduna ak ay lëndamaayam ci ay seytaaneek ay noon ak ay jinneek ay njabarak ay lu mu mën a doon yii nii yu ñu yàlla indil la yonent bi jàngal ñu ko ne def ñuy musal ci lépp lu nu ragal bu ci njëkk mooy salaatul fajri fil jamaa di julli suba fajar ci mbooloo Sénégal foog musiba dal leen population bi ñaata lañ 12 millions ñaata ñoo ci dem fajar jàkk est-ce que mën na 1 million ah mën na 1 million waaw jàkk joo dem première ñaari sàppi jàkk joo dem ñaari sàppi te ñu ne julli suba dafay aar nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man salla subaha fil jamaa fa huwa fi zimmatillah képp ku julli fajar ci mbooloo am nga kiiraay yàlla aar na la yow na léegi fekkee doo julli fajar ci mbooloo da ngay nelaw ba 10 heures yow taraxlaay sa digg kër def va et vient yéeg ci balcon bi yërndu tuuti xool nit ñi kooku sax mooy ku baax ki am na ñoo xam ne lu yàlla xam doy na ñaareel mooy qiraatu suratul ixlaas di jàng qul huwa allah wal muawisatayni aqul a'udhu bi falaq aqul a'udhu bi nas salaasan fi sabahi wal masa di jàng qul allah qul a'udhu bi falaq qul a'udhu bi nas benn bu nekk ñetti yoon suba ngoon yonent bi nañ def la yaar ñetteel qiraatu ayatul kursiyu fi sabah wal masa ngay jàng ayatul kursiyu suba ak ngoon boo jullee suba ba pare ak boo jullee timis ba pare qiraatu xawaatimu suratil baqara ak di jàng amana rasul mooy feewu baqara xoolal rek saaru baqara yonent bi saasam lan la ci wax kër gu ñu teg baqara seytaane du fa dugg kër gu ñu ko teg suñu kër yi lan lañ ciy teg lan lañu teg ci kër yi ak néew kër gooy dem fekk alxuraan di fa tàkk ak néew musique rek 24 heures sur 24 amul wàññi ku wàññi sax yenn saa ñu xeex ak moom ku wàññi waxuma ku ko fay de ku ko wàññi laa ilaha day mel ne ku rey nit mais lu tax ngay wàññi kii bi yow yokk ko yenn saa yi nga gis sax kuy dawal oto yokk musique bi ba da ngay mu fi nga xool oto bi gis ko moom kenn ci biir loolu pour la la yaa ngi dawal oto xanaa nga war a ñaan yàlla sax ndax yow lii ngay dawal seytaane la bu këppoog yow wala leneen laala rek àllaaxira nga jëm xanaa nga ñaan yàlla sax ba ngay wàcc jàmm nga teg alxuraan mais déedéet loolu da nga koy gis partout oto yi tukki oto transport yi oto ah particulier yi da ngay gis koo xam mba- ba ci moto moto moto mos naa gis koo xam ne benn ngandum baax la def ci moto bi ci ginnaaw day animé su rombee nit ñi foog nga taxaw dafa ni ni nga naan lu xaw fii fekk moom kese la loolu ci lan la bokk lu tax munoo tegee noonu alxuraan lu tax nit ñi mënuñu tegee noonu alxuraan da ngay gis tey dara am nga gis kuy wër ker par exemple benn waaye am tuur këram wala ay jàng naa nga mu mu amu leen kasetu alxuraan de xoola jullit buy àbbi kasetu alxuraan jullit di àbb kasetu alxuraan ñaata la ci Sénégal ñaata ay jullit ci Sénégal ñooy àbb kaset Quraan ñaata non man de xëy na yàlla aw ma ci nag aw ma aw ma aw ma kaset wala ngeen ngeen ko kaset yi yëpp lan la mu ne la waaye kaset yi nag ah waaye oustaz xam nga lan la waaye xam nga am na benn waay boo xam ne dafa jóge woon fii dem Makk jaameel islam yi di jàngi Sénégal la jógee di jàngi xam ngeen la ma tax ñu delloosi ko ah est-ce que xam ngeen lu tax ñu delloosi ko kaset Youssou Ndour la jël bind ci sudee sii kasetu Baaba Maal mu bind ci Abdul Basit kasetu dafa jël waykat yi ah waykat bu nekk mu bindal la benn jànkatu alquran daal di koy teg noonu nag mu dem jàngi kii bale néeg yi ñëw rek gis kaset yi rek daal di jël benn kaset rek comme alquran la la ci bind mu dugal rek après danga danga danga mu ne waaw wala damaa juum teggi dugal beneen muy loolu mu gis yëpp turu jànkat alquran lañ ci def mu dem wooyu ji ki jiite faculté kii bi université bi mu ne ko kaay kooku ne ko lan la mu ne ko xoolal kaset yi kooku ne ko waaw lan la lu ci nekk mu ne du kaset yi alquran kii Huzayfi la kii Basfar kii Manshawi la kii Abdul Basit kii Khalil Khusayri mu ne dugalal 30 kaset bu ñu dugal rek musique 30 gis nga kaset yooyu ak waaj noonu lañ ko buubee fekk ko fa mu nekk fa muy jàng université bi ba ba moom ba mu toog ñu yëkkati ko yeew ko ba mu ne ngodd indi aéroport ne ko nuyu ñu waa Sénégal noonu lañ ko delloosi xool loolu nu mu grave dem ba université islamique ne da ngay jàng l'islam jël cassette musique bind ci turu jàngkatu alquran yi waaw yi mu bind ci suratul baqara yi mu bind ci kahfi yi mu bind ci aa noonu la ko defe waaw ndeke yëpp musique la waaye gis nga ni ko yàlla feeñale ixwaan yi kon yi ay saar la ah yi ci des ay ñaan la bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fi lardi wala fi samaa'i wa huwa samin alim salaasan sabah wa masa ah soo xëyee nga wax ñaan bi ñetti yoon suba ngoon bokk na ci li lay aar auzu bi kalimatillahi tammati min shari ma xalaq salaasan fi sabahi wa masa ñaan bi day aar nit bu ko waxee ñetti yoon suba ngoon kon lii sunu borom moo ko wàcce lii yonent bi moo ko wax bu fekkente ne yow da ngaa gëm benn waay bu la ne lii boo ko takkee jàmm ngay am yàlla mii borom waajooju ne la lii boo ko takkee boo ko na boo ko waxee da ngay am jàmm la war a def ko war a gëm ñaar ñi su fekkee da ngaa gëm benn kilifa diine bu la ne lii boo ko defee am jàmm yonent yàlla muhammad ne la lii boo ko defee am jàmm ñaar yooyu ban moo ëpp kiiraay ban moo ëpp sécurité mu ngoog kon nag ixwatal iman wal waajib alal muslim li war ci jullit an yualliqa qalbahu billahi tabaraka wa taala wahdahu jullit na aj xolam ci yàlla kese kese kese bu mu dugal bu mu dugal keneen bu mu dugal leneen ci xolam bu mu dugal keneen bu mu dugal leneen ci xolam yàlla kese yàlla kese dugal keneen yàlla kese yàlla rek mu ne wayata jannab asbaabal waahiyati li shifa mu mooy ca ndiku ay mbir yoo xam ne dafa doyati amul njëriñ ci côté faju mel ni ay wëñ wala wëñ wëñ wëñ ñaata sénégalais ngay gis ku takk wëñ bu weex wëñ bu ñuul wëñ bu xonq ñaata sénégalais ngeen koy gis ñu ko takk ñaata sénégalais ngeen di gis yu takk ay lam ñaata sénégalais ngeen di gis yu takk ay béjjén wala béjjén ci buntu kër yi nga gis béjjén ci oto yi ay ndombo ay téere ay deru bukki boppu kakatar deru jaan ah lu nekk nga gis ku ko takk deru bukki ah ti ndeysaan ñooñu ko takk amul leen benn njëriñ loolu moo tax bokkaale doy waar da ngay gis waa ji def ba pare def ba pare amul njëriñ comme ku feebar ki ma gisoon ñu rey de béy sange ko deret ji ba pare mu dee léegi yow bokkaale nga dee nga au lieu bi nga feebaree sax nga tuub dellu ci yàlla mais nga dem bokkaale te sénégalais dëgg dëgg dëgg balaa muy bokkaale mu tiit wala mu am aaju loolu loolu bor yàlla naan subhaanahu wa taala yéen bokkaale ñun bokkaalekat yi njëkk yi sax ñu gën ndax ñooñu bu ñu déggoon gaal bu ñu demee biir géej bu ñu tiitee ñu dellu ci yàlla wa iza rakibu fil fulka daawullaa muxlisina lahu diin bu ñu demee biir géej bu bato bi yëngoo wala oto wala avion mu ne gërëng rëng rëng rëng ñu ne ay suñu borom bu ñëwee nag ba wàcc ñu ne si le capitaine là mais ouh il est fort mais ba ñu wàccee lañ bokkaale mais bu ñu tiitee dañoo dellu ci yàlla ñun nag bu ñu tiitee dañuy bokkaale bu ñu wàccee bokkaale bu ñu tiitee bokkaale bu ñu wàccee bokkaale ñee nag bu ñu tiitoon dañuy sellal jaamu yàlla ba ñu wàcc ñu doog a indi seeni xorom def ci ñun nag yëpp kaani lañ ciy suy duñ jox benn yàlla subhanahu wa taala kon kay bokkaale yu njëkk yi sax ñu gën kon jullit war naa moytandiku takki wëñ takki lam ñaata sénégalais ngay gis tey yu takk lam ñaata ñaata démb démb dama waaru démb dama toog ay ay ay nit ñëw di ma xam di ma wax benn programme islam bu am te kenn ki mu ngi takk ngandu lam te mu ngi ma yor programme ul islam naan ma benn cheikh mooy ñëw fële gars yi nee nañ ñu wax la ko pour nga ñëw ma xool ko maa ngi gis mu takk ngand lam ma ne ko yore cheikh bi ci yow la waroon njëkki cheikh bi baaraat mu naa ma ne ko ci yow la waroon njëkki ah ndax lan ma ne ko xoolal lam bi nga takk ba pare ngay wër di woon nit ñi ci diine ba loolu ban ban ban diine la diine islaam bëggul lam mbokk yi jullit war na moytandiku jat wa tamaim ak ay gàllaaj jat suñu nee jat jat ak mocc du benn ça fait deux mocc ay baat yooyu wax la yu leer naññ yu amul benn bokkaale mooy li ma waxoon sànq auzu bi kalimatillahi tamma bismillahi allazi la yaduru ma ismi shay'un qul huwa allahu qul a'udhu bi rabbil falaq ayatul kursi amana rasul amma jat nag xam ngeen ko lu ci dégg dara baaxul mbokk yi ak ay gàllaaj yoo xam ne day bokkaale fa innaha la tanfa bal tadur yoo xam ne du jëriñ amul benn njëriñ amul njëriñ fenn ci dara lu dul yaa ngi ko takk ñàkk sa diine sori sa boroom parce que yaa ngi sobe yaa ngi takk ay gàllaaj te xam ngeen ne lépp lu ñu jële ci luy dund nga takk ko loolu sobe la loolu sobe la nga takk ko ci ñun fii tey ci sunu réew ñaata nit ñoo fi def yooyu ci seeni buntu kër ci seeni oto ci seeni yaram da ngay gis ñoo xam ne laa ilaha illallah dañoo takkat xoola xoola mbër yi xoola mbër yi dañuy takk sangu naan def lu ne te terewul boo ñëwee ñu daan la kooku amul njëriñ léegi nag yow bu ñu la daanee pare waroon nga wax sa sëriñ bi yaa mun a fen wala lii rek te ñaata la ñuy financé ci gàllaaj ah da ngay dem ba gis ku xam ne jaral na leen ñu dem ba ci armée li sulli néew jël yaxam nga dégg ñu ne yax bi yaxu néew la moom socc bi mu yor la yax boobu muy sex yaxu nit ku dee la wala ndomb boobu deru nit lañ ko ëwee ah wala nangam boobu subhanallah nga gis ni ñuy def alxuraan di ko toroxal bind ko ci seen yére yenn saa yi nga gis ku ñëw def ko benn sijaada toog ci taxaw ci di sotteeku ñëpp gis ko te li li doy waar ci Sénégal mooy doo gis benn kilifa diine wax ne lii lii def aram te def xaram waxuma la nekk mbër aram na waaye seetaan bëre rek aram na seetaan ko toog di ko xool ci télé dafa xaram kon mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala dafa bëgg ñu gëm ko moom kese bañ ko dendale lenn ak kenn dafa bëgg sunu xel yi ak sunu xol yi ak sunu pas-pas yàlla kese kese kese kese kese nekk ci leneen bañ cee nekk mbokk yi lii moo doon dar sa tey ñu ngi jéggalu sunu borom subhanahu wa taala di leen jéggalu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh